bisimilah gay ma ngi len di ziar ma ngi len di nuyu ñëpp di lañ jox seen way waaw dama def ben vidéo bu gatt rek parce que demb dama defon ben live don doon euh, tout ma c'est-à-dire euh, expliquer ci gàttal li wa keur buki moy wa APR ñoom ñoy wa keur buki gis ngeen len ni ñuy xeexee parce que ay bandi mom fuñu dajaw rek di seddo manam luñu sacc faru faaw xex xeex mom c'est voilà quoi lu leer la gis ngeen leen dem sen dajja bi dajja won na dañuy nax sen bop comme naa nga ay xex lañ mujjé <clears throat> dem dama dafa non ben la mais nak xol bu tang la ko defé won sama xol dafa jéxon non expliqué li si li ñuy jafandu noonu c'est-à-dire dem bi Ousmane Sonko dem Ousmane Sonko wax bi mu wax ak euh, interview bu may wa France 24 ak wa RFI moy média de propagande bobu nous nga xamante ni France ñoo ko créé uniquement pour africains parce que RFI ak France 24 en fait loolu la il faut ngeen comprendre que ni ay médias yi ñu créé la uniquement pour distraire africains yi pour manipuler africains yi parce que ñoom li ñu diffuser yéen du yegg France français xamuñu luy France 24 xamuñu luy RFI RFI bi fi am fii France rajo la boo xamante ni nii français kese ñoom la concerné bokkul ak RFI bi am Afrique boobu pour propagande la pour manipuler africains yi dox seen kaw mayeen maanaam maanaam genre entre guillemets intellectuel yi bref lolo tax ma def laaj bu dem bi mais xol bu jeex la ko defé quoi mais damay def bu gàtt damay def dam bi dama koy gattal juste pour expliquer lan mo tax Ousmane Sonko ubil len ñom France 24 ay buntam ba ñëw defal ko interview donte dañu dag interview bi interview bi il faut ngeen xamni gaay gars ñu lepp lépp ñu fi Ousmane Sonko di waxé ni Macky Sall dafa dak général gendarmerie bi nga xamante mo commandité enquete bi wane complot bi Ousmane Sonko wax na ko ci interview bi dañ ko dagg wax na tamit ne capitaine Touré bi nga xamante ne moom moo def cest à audition bi ah complot bi xale bi jigéen bi ñu jël utiliser ko daf ko objet parce que Macky Sall day jël xale jigéen yi nga ne dañ leen dénk yaa ngi daan dañ ko dénk réew mi pour mu toppatoo doomu Sénégal yi jël leen di leen utiliser pour def ay politique politicienne Ousmane Sonko cité na capitaine Touré bi nga xamante ne dañ ko rajjee parce que moom moo def yaa ngi dégg audition PV yu normal yi Ousmane Sonko wax na ci Mamour Diallo bi nga xamanteni ni APR la da nga mom xaritu Macky Sall la mom mo fay xalé bu jigen avec l'aval de Macky Sall parce que Mamour Diallo complot bi daf ci waxtan ak Macky Sall ba paré Macky Sall nako dam, dem leen ngeen lijjanti ko mais buma ci Mamour Diallo dem tax ba tey Macky Sall di protéger Mamour Diallo di ko jël ko di fal ay directeur ginaaw bi ñepp xamé ni mom mo nek ci ginaaw Adji Sarr Ousmane Sonko wax na loolu ci interview bi mais tuba bi dañu dag ok lan mo tax Ousmane Sonko def nangul gars yi interview moom mi waxoon ni da nga maam du mus du mus a wax wax si seen télé loolu laa leen bëgg expliquer la ma tax président Ousmane Sonko def ko parce que waa Kër Bukki mooy waa APR ñu ngi profité ci loolu naan Ousmane Sonko dafa wax waxeet ay nangam-nangam dugg na fii génn fii déglu leen raison bi njëkk bi tax Ousmane Sonko nang accepté leen interview bi moo dañoo jéggalu

il faut que mu leer Ousmane Sonko dafa tegoon ay conditions pour wax si ñoom seen télé ak seen rajo dafa ne woon bu ñu jégaluwul moom du wax si ñoom parce que ñoom ëpp ko fulla te loolu moom la dignité boobu moom la ñuy xaar ci nit ku ñuul nit ku ñuul loolu moo ko manqué moo tax tubaab yi yab ñu bu ñu gisee tubaab yi yab ñu ah parce que ñun amuñu fulla suñu bopp Ousmane Sonko fulla boobu nag moom la leen wan. te ñoom avant ñu am interview bi dañoo ñëw jégalu gars yi jégalu nañu ah RFI ak France 24 dañoo jégalu Ousmane Sonko dañoo reconnaître seen tort. moo tax Ousmane Sonko nangul len interview bi lol Ben, la mais benen bi moy gars partager partage vidéo bi ba ñoom ñëpp ñu jot ci kat yi wa keur bukki benen raison bi tax Ousmane Sonko accepter len ñoom sen interview bi gëna bi mu waxone mom moom dootu ko def moy Macky Sall dafa dem fenal sénégalais yi dafa dem ci tuba bi fenal ñu yàq fa suñu der na ñun ay terroriste lañ ñu dañu bëgg a taal Sénégal nangam nangam yàq fa suñu der mom ak Aminata Aminata Tall Sall ministre des affaires étrangères bobu dañu yàq suñu der dañu dem taxé ñu ay terroriste né ñun ay terroriste lañ ñun wa Pastef ñun wa ñun wa ñun patriote ay terroriste lañ dañu bëgg a taal Sénégal nangam nangam ay nitu fitna lañ loolu Macky Sall def té loolu Macky Sall lan ma tax mu def ko parce que troisième mandat bi mu bëgg forcer xam na ni sénégalais duñ d'accord ak mom té dafa jël décision ray ay sénégalais mom Macky Sall dafa jël décision boobu niko Alassane Ouattara défé won Côte d'Ivoire français jappalé ko ci non la ko Macky Sall bëgg défé Sénégal pour français jàppale ci ko jàppale ko ci mais léegi pour pour mom manam Macky Sall bés buy rey sénégalais yi ndax affaire troisième mandat bu ko defee communauté internationale bi duñ ci duñ addu c'est-à-dire duñ intervenir parce que gëm loolu na ni ñun ay terroristes lañ gëm loolu na ni ñun ño bëgg taal Sénégal gëm loolu na ni ñun ay nitu fitna lañ té loolu la gëmal du lo sëriñ ci ba ci sëriñ ci loolu la ñu gëmloo dégg nga loolu nag moo tax mooy deuxième raison bi tax Ousmane Sonko accepte interview boobu parce que si ñom la demoon fénal ñu il faut que Ousmane Sonko teggi fen yooyu noonu il faut que Ousmane Sonko teggi fen yooyu loolu mooy deuxième raison bi tax Ousmane Sonko accepté gars yi interview bi te gis ngeen Ousmane Sonko ni mu ko defee teggi na fen yi xamal na ne ni Macky Sall askanu senegal ñoo ko won ginnaaw moo tax muy wër di fen di yàq suñu der parce que peuple bi ñoo ko ñoo génn ci moom moom xam na loolu te tubaab yi seen bopp xam nañ ko parce que dofuñu ñoom yor nañ seen i nit yor nañ seen i yoo xamante ne nii yaa ngi dëgg seen i agent ci àdduna bi dañ leen di jox rendre compte dañ leen di jox tubaab yi xam nañ sénégalais gën nañ ci Macky Sall légui nak Ousmane Sonko lool moy deuxième raison bi tax mu dem accepter gars yi interview bi pour teggi fen yooyu nga xamante Macky Sall ak Aïssata Tall Sall fenal nañ ko sénégalais yi pour buñuy ray sénégalais yi ndax troisième mandat ñom communauté internationale du intervenir li moy raison yi waral Ousmane Sonko accepter gars yi seen interview boobu te Ousmane Sonko loolu daf ko def parce que kilifa la daf ko def parce que politicien la li moy politique politique bu jare nga bay say wax bu jare nga sa delu ci sa kaddu pour sa askan muccu lol moy politique lol Ousmane Sonko def lol Ousmane Sonko def lol xamé lan ko Ousmane Sonko homme politique la te askanu Senegal moko ñor parce que xamna ni bu bàyyee Macky Sall ak fenn yi nga xamante fenal yi ci étranger bi bés buy rey sénégalais yi communauté internationale duñu intervenir parce que gëmloo na leen ni ñun ay bëgg taal dëkk bi parce que patriote bëgg taal dëkk bi mais loolu il faut ñu teggi ko fen yooyu Ousmane Sonko bu dee kilifa la il faut mu teggi ko te loolu def teggi na ko ñoom nag xam nañ loolu moo tax ñuy jaddi jaddi yaa ngi dégg di say di bëgg a wëlbati affaire yi naan Ousmane Sonko dafa wax waxeet bu fekkee Ousmane Sonko wax waxeetam boobu noonu day ay dagan noonu la demee lol ben lay benen bi moy ci bir interview bi Ousmane Sonko déglu len bax parce que gars dañoo mëna fenn wa APR ñom ñëpp nak sans exception képp ku bokk APR kat nga képp ku bokk APR wala képp ku and ak Macky Sall ci limu nekké ci bir réew mi kat nga nit ku bon nga parce que dañoo ne wan ma ki nga andal ma won la kan kan yoy yoy yow kan Macky Sall képp ku and ak mom yeen ñaara yem ben ngeen ak ko mëna don nak ah, ak ko mëna don voilà Ousmane Sonko ci interview bi tamit aussi dégg nañ ko da nga maam mu faire comprendre tubaab yi par rapport ak leneen Macky Sall gëmloo ne leen wooy Ousmane Sonko contre il est contre les parce que loolu lañ dem wax xam nga ay fenkat lañ ay yàqkat der lañ ay góor jigéen lañu fen rek la ñuy def dem ci tubaab yi ne leen wooy Ousmane Sonko ah, dafay contre français yi ay ay bëgg bu jëlee dëkk bi hmm, ay Russie si Russie lay dem Ousmane Sonko leeral ko ne leen carrément man amul Russie amul chinois. amul américain amul ñëpp laa yemale man Sénégal moo ma intéressé man intérêt Sénégal laay dox xooluma ci ay drapeau jëluma fi tubaab bi pour indi fi beneen tubaab fulla gu mat sëkk la Ousmane ko wan li nga xamante ne moom mooy tubaab yi foofu nag dama ciy xaabaabal déglu leen dama ciy xaabaabal de parce que dafa doon loo xamante ne dama koy yàgg wax gars yi bëri daa yaa ngi dégg capté ko woon yéen taalibe murid yi déglu leen ñi nga xamante ne ñoo ànd ak Serigne Bass Abdou Khader di xeex Ousmane Sonko yéen laay waxal parce que Serigne Bass Abdou Khader day xeex Ousmane Sonko Serigne Bass Abdou Khader Macky Sall la àndal mu koy jox suñu terrain da nga maam Serigne Bass Abdou Khader moom moo jàpp kirif moo jàpp Serigne Mountakha en otage di ko nëbb dëgg bi looloo waral ngeen dégg Serigne Mountakha naan Touba da koy jox Moussa Fall Serigne Bass Abdou Khader moo nekk ci ginnaaw dogal boobu loolu na ko ñëpp xam. legi nak yow seigne mas seigne bas abdou xaadir yow ak mu taalibe murid yi ma gis ñen di jëm attaquer Ousmane Sonko deglu len ma wax len lu leer lo xamanteni du ngi ko dëndé Serigne Touba mo tax ngeen am li ngeen am yeen Serigne Touba mo tax ngeen yegg fi ngeen yegg tay Serigne Touba bobu yàgg na leen wax ni Ousmane Sonko ci ay tank Serigne Touba la nek yàgg na leen wax ni Serigne Touba bu delu ci woon si jamono bi ci ay loxo Ousmane Sonko lay téé parce que li Serigne Touba doon xex tànk yooyu Serigne Touba doon teg ci réew mi jëmale ko ci diine ji jëmale ko ci der bu ñuul Ousmane Sonko ci tànk yooyu la nekk tey Ousmane Sonko dëgg dëgg ba ñu waxantee dëgg rek cër bi nga xamante ne Serigne Touba moom la yàgg réclamé Touba bi moom la Ousmane Sonko tey yaa ngi dégg dëggal moom la Ousmane Sonko dëggal parce que Touba bi bokk na ci li tax ñu interviewé Ousmane Sonko moo dañoo ragal dañoo tiit dañoo tiit Touba bi dañoo tiit gis nañ li xew Afrique gis nañ ne africain ñu leen maanaam ñu ngi leen yi ñaar réew rek moo leen fi dese mooy Sénégal ak Côte d'Ivoire ki nekk Sénégal amul benn oppo ki nekk Côte d'Ivoire amul benn opposant bu ko mën a yaa ngi dégg tëbal fu mu toog mais Macky Sall am na ku ko mën a tëbal fu mu toog te xam nañ ne bu ñu pertee Sénégal mooy perte nañ Côte d'Ivoire mooy perte nañ Afrique ñoom xam nañ ko te xam nañ ne Ousmane Sonko moo téye réew mi ci ndogalu yàlla ci ci kattanu yàlla Ousmane Sonko moo téye Sénégal jamono ji xam nañ ko ñoom tubaab ne genre espèce bu benn genre yaa ngi dégg woot maanaam woote wàllu c'est-à-dire tubaab yi bokk interview bi da comprendre que ñu ngi ñëw di jéem a yaa ngi dégg di jéem a c'est-à-dire euh, jege Ousmane Sonko pour Ousmane Sonko dimbali leen parce que loolu waral ñu posé ko question bi na ko yow est-ce boo jëlee Sénégal dangay dem ànd ak Russie parce que ñun ñëpp xam nañ ni ñoom ak Russie jamono ji si guerre lañ nekk. xam naa ngeen loolu bokk na ci tax tubaab bi fexe ba def interview bi tubaab bi nga xamante ni Macky Sall mooy seen candidat Macky Sall mooy seen élément Macky Sall mooy seen doom Macky Sall mooy seen talibé Macky Sall moo leen fi ñu xamné interview bi ñu défal Ousmane Sonko dina wàññi Macky Sall lu bari bari bari mais def nañ ko quand même loolu la woon tubaab yi ñoom kenn du leen yakal fu intérêt nek amul Macky Sall amul Paté amul Samba kenn du leen ko yakal Macky Sall jour interview bi nelawul man ma leen koy wax dafa mandi ba fajar man loolu laa gëm Macky Sall jour interview bi da mandi ba fajar léegi nag yan taalibe murit gën leena fonk Ousmane Sonko jox leen Ousmane Sonko cër parce que tank yi nga xamantene mën ba Serigne Touba taxawee ci réew mi même tànk yooyu man ma Ousmane Sonko taxawee ci réew mi te Ousmane Sonko moom moo tax tubaab ngeen gis leen militaire français ngeen gis leen keroog ñu ñëw si Serigne Mountakha mooy màggal tubaab yi passé Ousmane Sonko moo ko waral ñoo ñëw ba sëri tànk ay tànk Serigne Mountakha Mbacké sukk fa bu gisee militaire français ñëw ba sukk ci ay tànk Serigne Mountakha Mbacké Ousmane Sonko moo ko waral loolu laa bëgg ngeen comprendre ko yéen taalibe mu dellusiwaat si jamono parce que moo fi am taxawaay bi nga xamante ne moom Serigne Touba moom la amoon jëmale ko ci li nga xamante ne moom mooy der bu ñuul jëmale ko ci li nga xamante bu leen fàtte nii yéen taaliba murid laay waxal du ñëpp nag du ñëpp mais am na ci ay benn ñaar ñetti taaliba murid surtout na taaliba Cheikh Mourou Kara yéen laay waxal nekk leen ay nit seen Serigne boobu noonu lu mu am Serigne Touba moo ko moo ko jox. te tey jii nii taxawaay bi nga xamante ne moom la Serigne Touba bëggoon doomu Sénégal yi taxaw ko tey lañ ko gis. te Serigne Touba mom mo wax yéen ñëpp ngeen dégg ko ni bañ nasaran rek doyna ci jaamu yalla bu leen gisee tey ngeen di ànd ak Macky Sall mii ànd ak nasaraan si ah mooy loolu lii moo waral interview bu ci gatal nañ ko xamé ni Macky Sall dafa ram yàq suñu der ci touba bi ne ñun ay terroriste lañ ñu no bëgg taal réew mi te touba bi dañoo am intérêt Sénégal parce que Sénégal amna gaz amna na pétrole dañoo am intérêt fofu léegi moom bu gëm la loolu touba bi ba touba bi gëm ko te teggiwuñu tuuma yooyu nonu bës bu Macky Sall di rey Sénégalais yi parce que troisième mandat bi il faut que mu rey ay doomu Sénégal moom Macky Sall pour mu am troisième mandat loolu ñoom loolu yéen xam ngeen ko. xam ngeen ko xam ngeen ni Macky Sall mii il faut que mu rey ay doomu Sénégal pour pour am troisième mandat te bés buy rey doomu Sénégal yi nag tubaab bi bu baa c'est-à-dire international bi du ñu intervenir parce que gëmloo na leen ni ñun ay terroristes lañ looloo tax Ousmane nga xamante ne Macky Sall def na ko li ma doon li ma doon ñaar raison yi moo ko waral tubaab bi dañoo jégalu ba pare danoo jégalu ba pare accepté ni ñoom danoo def erreur ci interview bi ñu interviewé Adji Sarr dañ see def erreur loolu nangu nañ ko ñoom tubaab yi loolu tax Ousmane Sonko teggil leen loolu léegi na leen kaa leen garaaw amul problème même bu fekkee dagg nañ ay parti yoo xamante ni fu muy tuddee dàq bi ñu dàq général Tine Ousmane Sonko tudd na dàq bi ñu dàq ki nga xamante ne mooy capitaine Touré Ousmane Sonko tudd na Mamour Diallo mi nga xamante ne moom mooy yaa ngi dégg Macky Sall la àndal moom moo fay xale bu jigéen bi mu nekk ci ginnaaw xale bu jigéen bi dégg nga maam pour mu takal ko loolu Ousmane Sonko tuddu noko mais tuba bi dañ ko dindi xawma nak nag la moo tax ñu dindi ko nak mais ñun dinañ ko ci dugalaat <laughs> waaw bu ngeen duggé ci paas bi di ngeen fa fekk liñ dag ci interview bi mu ngi ci paas bi may waxé ni mu ngi ci voilà léegi yenn talibé yenn talibé mouride yi surtout Cheikh Bass Abdou Khadir yow lay waxal yow Serigne Touba tay bu yalla defoon mu dellusiwaat ci ci ah, aduna bi ni yow dula xol yow dula xol parce que Macky Sall nga andal te Macky Sall touba bi la andal te bi yoy noonu ñëw jël Serigne Touba yóbbu ko Gabon def tee ko fa juroom ñaari at façon toroxal bu ne toroxal nañ ko ko ñu jëlé ko Gabon delloo si ko Sénégal téy ko lu mat ans résident surveillé manam prison. Hmm. oui oui oui biñ ko jëlé Gabon mom Serigne Touba Touba bi résident surveillé lañ ko duggal ba keroog muy wuyu ji boromam. oui oui j'ai vu oui j'ai vu ba bu muy wuyu ji ak boromam moom Serigne Touba Touba bi dañ ko téy résident surveillé pendant 13 ans. 13 ans lañ ko téy résident surveillé loolu sëñ ab Bass Abdou Khadre yow boko faté ñun faté fàttewuñu ko. yàgg say moroom yéen bu ngeen fàtte loolu ñun fàttewuñu ko ñu fàttewuñu ko Ousmane Sonko tey bu fekkee tubaab bi tey am na benn cër bu gàtt bu ñu delloo ci Serigne Touba Ousmane Sonko moo tax. Ousmane Sonko moo tax mais du yow Bass Abdou Khadre du yow Cheikh Mourou Kara Mbacké du ñu du yéen ñi mel na yéen nekk fii di complot ak gouvernement bi ci kaw askanu Sénégal parce que loolu moo xew loolu moo xew. da ngeen di bi ak ànd ak état bi di kompaloo yow sëñ Cheikh Bass Abdou yow ak Cheikh Modou Kara ak mel na yéen bu Serigne Touba dellusi woon tey si jamono du leen xool yéen da leen di dummóoyu parce que da ngeen a jaay li mu fi bàyyi da ko weccoo ay terrain ak ay privilège ak ay ay ay passeport diplomatique ay mbiri àdduna ngeen weccoowee li nga xamante ne moom la fi Serigne Touba bàyyi Serigne tubaa li mu fi bàyyi buñ si sukkandikoon tey jii nii depuis boobu ba léegi tey jii nii ñun moom nañ suñu bopp tey moom nañ sunu boppu tey tay ku melni ni Macky Sall du tok si réew mi di fat ay doomu Sénégal ci lu neex tubab bi te ciow du jip li mo xew il faut que ñu wax lan ko nak il faut que ñu wax lan ko parce que gis ngeen réew mi ñun ñepp ñoko bokku diine ji ñun ñepp ñoko bokku bokk ñu kenn di jël diine ji di si commerce da nga maam wala di def des naka sulul nonu ñu tek lolu mom mën ta nek bu ngeen ko yaakaare da ngeen son son bo bu leen neexal ngeen dem tal keur ngeen dem tal, keuru gaay yi comme ni ngeen koy defee Mollah Morgun dégg naa tal ngeen tal ngeen keuru keuru papam lolu mo sen réponse loolu mooy seen réponse waaw parce que di nga dëgg neexul dëgg neexul man ànduma ci lépp lu Mollah Morgun di wax ak façon wala boog façon bu ñu koy waxee man ànduma ci dégg nga mais nag taal këru papa yi Mollah Morgun moom ah loolu moom toor la nit ku am toor rek mooy def loolu parce que jàpp naa ne ay tuuma du ay taal moo koy teggi Mollah Morgun même bu fekkee dafa leen a tuumaal du ay taal këru bi nga xamante ne jotewul ak yenn dara moom mooy teggi tuuma yooyu déedéet day ni génn ngeen teg ngeen toog ngeen teggi tuuma yi noonu ñu koy defee voilà tubaab yi yéen ñëpp gis ngeen keroog magal tubaab yi passé ñu ñëw Touba sukk ci ay tànku ki nga xamante ne mooy seex mun taxaa lan moo tax Ousmane Sonko moo tax kon tubaab yi si nañ cër bi nga xamante ne ni moom lañ jëloon ci Serigne Touba delloosi nañ ko te loolu Ousmane Sonko ko waral parce que tubaab yi boo gisee ñu ñëw naa dañuy sukk ci tànku ay Cheikh Modou Cheikh Cheikh Cheikh nu mu tudd euh, Serigne Touba bii nii ah ah c'est parce que boobu mooy loolu seen xam-xam dafa jeex parce que te yéen ñëpp xam ngeen parce que yéen ñëpp xam ngeen ne tubaab yi Macky Sall lañu àndal ñaata ak magal Touba mi ngi am gis ñu fi ay militaire France yu ñëw di di ziar si sëñ bi bu ñu ko defee ren élection présidentielle yii ñëw moo tax voilà kon cër bi nga xamante ne moom moom borom Touba Touba bi jëlal nañ ko woon ci loxoom delloosiwaat nañ ko ko parce que Touba bi nag bi ñu bi ñu jëflante ak Serigne Touba ah ay kaso lañ ko doon dugal di ko yób ay ay ay ay ay exil. mais tey ñëw nañ ba sukk ci ay tànku sëtëm te loolu gisuleen ko lu dul bi Ousmane Sonko ñëwee la la am <clears throat> nañ nangul yàlla li muy maye nañ nangul yàlla li muy maye lii Ousmane Sonko am tey yéen lañ ko xamee woon ci réew mi aba ah zarif zarif li li tay Ousmane Sonko am ndaw ñëpp jox ko bopp fu mu leen woo ñu wuusi cotiser leen ñu cotiser dama leen bay ñu dem bay ji dama leen jàngal xale yi te du leen la bu leen laaj dërëm ñu leen jàngale xale yi te duñu laaj dërëm loolu ci sëñ si lañ ko xamee woon mais tey bu yàlla jëlee bu ko jëlee jox ko Ousmane Sonko ngeen war a xoolaat seen bopp ngeen war a xoolaat seen bopp yow ba sëñ Bass Abdou Khadre mooy mooy yow mooy Cheikh Modou Kara mooy ñu mel ni yéen tey bu fekkee woote ngeen tey benn doomu Sénégal wuy si leen Serigne Touba moo tax mais du seen jëf du seen taxawaay yéen waaw yow Zarif je vais taper Zarif tey yow bas Abdou Khadre la wax ak Cheikh Mourou yeen bu ngeen wote ci mim rew tay ah ndaw ñi fu ci leen du seen jëm yi wala seen taxaway moo tax mais Serigne Touba biñ leen di xolé moom moko waral Serigne Touba biñ leen di xolé moom moko waral Ousmane Sonko nak tay bu wote du dara moo tax ñu koy wuusi bi nga xamantene ni am ko lu dul bi nga xamante ne yaa ngi jox lako der bu ñuul duru cieur bi nga xamante ne yaa ngi dégg doomu senegal yi lolo tax tay ndaw ñu diko wuy ci té loolu Serigne Touba doon xeex ñun moo tax Serigne Touba doon xeex der bu ñuul moo tax Serigne Touba doon xeex diine ji moo tax Serigne Touba doon xeex te ci loolu la Ousmane Sonko nekk même bu fekkee du duti diine waaw parce que nag nekkul ni maanaam nit ñi ñu baax ñi nekkul nag ci diine ji rek lañ nekk de ñu baax ñi ñu ngi fépp ñu baax ñi ñu ngi fépp gor ñi ñu ngi fépp voilà li laa bëggoon partagé yaa ngi dëgg parce que laaj bu démb bi xol bu jeex laa ci doon waxee da nga maam moo tax ma dindi ko mais lii nag bëgg naa ngeen partagé ko ba ñoom ñëpp ñu jot ci parce que gis naa ay taalibe Cheikh Mourou Kara ay takk seen rajo yi ay ancien danseur ay ancien feccikatu Oscar takk seen rajo yi tey danga nga maam di sonal nit ñi dañu bëgg a reeg wax ju bari danga nga maam jàpp ni danoo yeew te yeewuñu te looloo gën a bon ci àdduna nit koo xam ne da nga foog ne da ngaa yeew te yeewoo li nga xam rombul sa bakkan ñëw li nga xam rombul sa gis-gis loolu du nit ki nekk li ngay gis mooy xam loolu affaire de affaire de jaaxil la jaaxil mooy jàpp ne li mu gis rek loolu mooy xam-xam jaaxil mooy jàpp ne li mu gis looloy àdduna loolu ab loolu ak jaaxil mooy gisee noonu ak ak jaaxil mooy xalaatee noonu ak jaaxil mooy xalaatee noonu voilà na ngeen ko xamee noonu nag yéen booy taalibe Cheikh Mourou Kara yooyu boo doon xamalee Ousmane Sonko benn te xamalu leen ko dara nag dara xamalu leen ko ko ay affaire ngeen di collecter de gauche à droite à droite ay fenn di jëma a ut ñoo leen manipuler dégg nga mais ñun luñu xamal seen sëriñ bobu nonu wax baaxul nek leen ay nit nek leen ay nit voilà nek leen ay nit yeen bu ngeen démé ba li ngeen doon gis ci seen sëriñ gisatu leen ko ci mom ngeen ko gis ci ben way yo xamanteni neena mom na politicien la ngeen waro no poser seen bop ay question pour mëna am ay réponse mais di ko def fi ngeen di nek di fanatique fanatique lu di dof lu da nga mam mais gis nga bu ngeen dey ngeen di am lu len bet aduna fi ni mu len comprendre gis nga bes bu ngeen demé ba jàkkaarloo sen borom ci ngeen di xam ci ngeen di am lu len bet yeen ci ngeen di am lu len bet man lu laa dama leen koy wax ngeen dégg ko parce que sen dof lu gi nak saay yi voilà dafa ëpp quoi mais sen sen serigne dafa am parti politique mais assumé len assumé leen genn leen ngeen taxaw ngeen ne yeen ay produit ay produit sénégal parce que li ngeen def ci diine ngeen koy jéem a jéem jaarale ci diine ji ngeen koy jéem a jaarale mun leen jaar mun leen jaar ci diine ji diine ji dafa mat sëkk complet amul dar dar dar lu ci manké diine ji mun leen sey yokku lenn lenn wala ngeen wàññi si lenn ta nek ngeen ko jéem utiliser nak wa mais nak ñun lolu du suñu kanam ngeen koy defee du suñu kanam ngeen di jéem utiliser diine ji pour dox suñu kaw ta nek da ngeen solo sen bop xam la ngeen def yeen assumé leen ne seen seen kilifa boobu dafa am parti politique bu dem seey ci biir APR bu dem seey ci biir benn bokk yaakaar ngeen assumer seen seen position politique ngeen ñëw ñu jàkkaarloo ku mun sa morom duma loolu kese la loolu la mun la ñoo nax il faut ngeen xam ne mun leen ñoo nax mun mun leen jaar ci diine yi pour nax ñu non non mënut ta nekk Ousmane Sonko amul lenn ngeen ko waxal ay sos ngeen di def créer seen i affaire ut ay vidéo collé te li ngeen di wax sax dara jubu amul lenn lu jub lu ngeen di wax voilà toog ni yàcc ni yasar muy dox loolu moo jeex ci mim réew toog ni yàcc ni yasar muy dox te looloo tax tubaab bi tudd leen marabu ah dama leen dox turu marabu fan la jógee ngeen turu marabu mooy toog toog muy dox ci turu turu marabu foofu la jógee tubaab bi moo tuddee seen si marabu yéen turu marabu boobu yàgg ngeen ko dégg Sénégal ñëpp xam nañ la mooy marabu mais xamuñu en fait fan la moo jóge toog muy dox bi loolu moo tax tubaab bi tuddee sunu sëriñ si tuddee leen marabu. parce que ñoom dafa leen jaaxaloon ñuy toog affaire yi di dox gars yi dem di ñëw mais loolu affaire suñu borom la affaire bu baatin la quoi loolu suñu suñu borom moom moom may xam-xam yooyu ñi nga xamante ne ñoom ñooy mag ñi parce que mag ñi nag il fallait ñu ñekk yaa ngi dégg ñu ñekk ñi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekkoon comme ay jaaxel ñu ñekk leen ci xam-xam pour mën leen a maanaam won yoon bi parce que dañoo dëgëroon bopp ay xamb lañ fi fekk mag ñi bi ñuy ñëw ay xamb xamb yi gënoon mag presque ci Afrique de l'Ouest Sénégal amoon na ci ñoom Serigne Touba bi ñu ñëwee ak Alaaji Malick il ñu utiliser xam-xam bi nga xamante ne moom lañ moom voilà moom moo moo làqu ci biir affaire yi il fallait ñu utiliser xam-xam boobu pour ñekk gars yi parce que gars yi dañoo dëgëroon bopp dañoo dëgëroon bopp borom xam yi nekkoon fii dañoo dëgëroon bopp la preuve mooy ba tey dañu gis imam boo xamante ne nee na moom day day gérer ay xam dem leen boo demee ngor xaw ma yoof dina fa fekk benn imam nee na imam la mais du yor ay xamb xam nga loolu dafa doy waar looloo waraloon nag ñoom ñoom ku mel ne ay Serigne Touba yaa ngi dëgg mu musalla mu mu mu mu yaa ngi dégg musallatul razali yi xam-xam bu doy waar boobu mu yoroon di si ñàkk gars yi di toj xamb yi loolu suñ tubaab loolu doon tojee xamb yi musallatul razali yi la yoroon xam bu ñuy wax musallatul razali yi moom la doon moom la doon ñegee gars yi borom xamb yi toj day xamb yëpp indi leen ci diina ji si leer gi leer gi nga tubaab bi nag loolu boo xooñoon si li leen jaaxaloon Serigne Touba bañ jël ko exilé ko jàpp ne waaye bu ñu ko génnee réew mi rek da nga maam kon affaire bi dina jeex mais boobu xamuñu yàlla tubaab boobu xamuñu yàlla ñoom jël Serigne Touba yóbbu ko sept ans jàpp ni après bu dellusee dina fekk gars yi dellusiwaat seen xam bi dëgër dëgër xam nga taxawaat fu dëgër bi Serigne Touba dellusiwaatee quand même bu mu dellusiwaatee gars yi dañ ko jël nëbb ko yóbbu ko résidence surveillé mais boobu xamuñu yàlla boobu ay ñoom ñoom maam Cheikh ñu ngi fee di ko matal ay ñoom Issa génn Cheikh Issa Diène ñu ngi fee di ko matal Serigne Touba di leen jox gars yi di dox mission yi ba affaire bi leer man moo tax tey damay ruus moo gisee ay ñu mel ay Cheikh Mourou Kara ay sëñ Bass Abdou Khader di ànd ak Macky Sall di ànd ak Macky Sall di baye askan bi parce que lolu mo xew dañ ko wax Macky Sall ñawte fi mu nekk ci rew mi amul ku nekk amul ku nekk gisuko amul ku nekk gisuko amul ku ko gisul mais quand même ñu ngi ànd ak moom ndax lan ay terrain ay passeport diplomatique yoy fi ngeen koy baye te yagatul fi fi juroom fukki at ñun ñi di wax man mi di wax ak ñu bari ci ñun kenn dootu fi dess fee la ñuy fekk yowmal xiyam ku fi dess tamit do am njëriñ kon lolu bàyyi leen ci xel li leen Macky Sall di jox ni jaru ko yar xam ngeen ne Macky Sall poson la ci réew mi xam ngeen ko xam ngeen ni Macky Sall poson la ci diine ji poson la ci li nga xamante ne moom mooy dignité doomu aadama yi dignité dignité sénégalais poson la ci parce que Macky Sall dafa ñoo tegaat ci loxo tubaab bi nga xamante ni nii da nga ma Abdoulaye Wade am na sax réussir na am na mu ci dindi mooy bi mu ñi nga xamante ñoo seen militaires yi Macky Sall dem delloosiwaat ñu ci mbuumu jaam gu ga Macky Sall daf ñu delloo si daf ñu delloo 1960 la ñu delloo jamono Senghor ci la Macky Sall delloo yéen war ngeen a jomb yéen Cheikh Modou Kara yow war ngaa jomb yow Cheikh Bass Abdou Khadre di ànd ak Macky Sall war ngeen a jomb loolu bi ngeen di doon li ngeen di doon Macky Sall fekkeewu ko bi ngeen di doon li ngeen di doon Macky Sall fekkeewu ko bi am li ngeen di am Macky Sall boobu juddoogul tey Macky Sall du am problème ak askan bi ngeen ngeen dem di féete ci côté am loolu dafa rusu waaw loolu dafa rusu léegi nag vidéo bi partagé la ma ko waa kër bukki jot ci ñoom ñooy waa APR ñàkk jom bay bëgg a mën a fen waa affaire ñoo mën a fen waa APR franchement non mais gàcce la sax ñu am ñun ay concitoyens yu mel ne waa APR dëgg-dëgg loolu gàcce la ci mim réew Ousmane ko wax na ko tubaab yi nee na Macky Sall gàcce la ci moom sax gàcce la ci réew mi ñu toog di wax ay wax troisième mandat te xam li troisième mandat di tekki mooy ay bakkan yuy faatu may gis nit ñi di fooye ay troisième mandat dem ci plateau télé yi mais léeg-léeg parce que du ay menace menacé wu ñu ne dañ leen di promettre di ngeen bés bu ngeen taalee dëkk bi yéen waa APR bés bu ngeen taalee dëkk bi kenn si yéen du rëcc bu ngeen yaakaaree ne da di taal dëkk bi dem toog seen kër yi làqatu bu affaire yi jeexee ngeen génnaat toog di di lekk seen million da di nax seen bopp da ngeen di nax seen bopp cette fois ci du demee nu mu demee woon de cette fois ci ñëpp yéen ñëpp ñi nga xamante ne yéen fi nekk di xam taal bi bés bu bi tàkkee barki Serigne Bamba yéen la ñuy xambee nday matt bi yéen la ñuy xambee taal bi bés bu ñu fi taalee safara yéen la ñuy xambee safara bi bi yow ngeen xam loolu bu baax a baax du ay menace ay promesse la parce que fii day jeex ci mim réew ñu nekk fi ay nit nekk fi di jaay doomu Sénégal yi pour lu ñu dugal dugal seen poos yi affaire bu affaire bu jeexee ñu dem làqatu ji bu affaire bi tàkkee ñu dem làqatu ji bu jeexee ñu génnaat parce que ñi ko defoon si jamono Abdoulaye Wade ñoom ñoo nekk tey ci Macky Sall loolu il faut que ñu ut si solution il faut ñu ut si solution ay nit yoo xam ne dañuy nekk ci mim réew saa yi di di di tayle Sénégalais yi ah ngir seen i caga wala seen i sàngara yu ñu naan après bu affaire bi tàkkee ñu dem làqatu ji bu affaire bi jeexee ñu gën a taxaw loolu il faut ñu ut ci solution faut que ñu ut ci solution mu arrêté benn benn yoon une bonne fois pour toutes bakkanu doomu sénégalais bu leen amul bu amul valeur ci yéen ñun bakkanu doomu sénégalais am na valeur ci ñun bakkanu doomu sénégalais bu amul valeur ci yéen yen seen bakkan amul valeur ci ñun loolu il faut mu leer leen ñi nekkoon ci Abdoulaye Wade di ko pousse ba mu def troisième mandat ñu rey fi lu ma 19 doomu Sénégal les mêmes ñoo nekk ci ginnaaw Macky Sall tey di ko bëmbax pour mu reyal ay doomu Sénégal pour seen interpersonnel personnel loolu il faut que mu jeex ci mim réew il faut que mu arrêté dama ne nañ jël suñu responsabilité ñoom ñi fi nekk ñëpp ci plateau télé nañ leen enregistré ñoom ñëpp nañ xool nañ nañ leen nañ leen c'est-à-dire nañ leen identifié benn par benn bés bu affaire yi tàkkee ñu xàmme leen safara bi mu jeex tàkk voilà loolu kese la woon